ci nekk sa tur ak sa sant di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di bu wër ci di ziar naka magal gi mbaa màggal ngeen ko ci jàmm yal nañu yàlla nangul suñu màggal yal nañu yàlla nangul suñu jaamu yàlla sant Serigne Touba rek sant Serigne Touba rek gërëm Serigne Touba. Masya allah Alhamdulillah. kon nak sama gaay ñi ngi leen di ziar depuis bobu def na ñaar ñetti fan déggu leen ma c'est vrai nak dañ doon wajal suñu bëss bi muy magal gi ñu koy wajal mom duñ tal dara dañuy nekk ci magal gi donc magal nañ ko ci bismillah terminé ko ci alhamdullilah di ñaan yalla nangul ñu suñu magal nangul ñu lepp luñ koy ñaan mu nangul ñu ko defal ñu Sénégal bu soti Sénégal bu baax Senegal gu jaar yoon ci barke xaadimal Moustapha sant Serigne Touba donc euh, les gars dañuy waxtaan encore comme niñ ko faral di defé di ñew rek di waxtaan ci tolluwaay rew mi problème mom moom mënuñu ko fajj ndax sa su nek rek Senegal yi problème yi kessa la problème mom <laughs> lu koy fajj mom moy yeen tan nit ku baax parce que nit yi. mënuñu saa su nekk rek ku nekk ñëw bugg indi benn problème ne waxal ci bii waxal ci bii waxal ci baa bu buñ buñ ci nekkoon kon duñ fi jóge parce que ñëpp ñëw seen problème waa Sonacos ñu ngi may woo di ma wax seen i problème waa ICS di ma wax seen i problème kee seen i problème te problème yooyu mun na ñàkk xam na la mun na ñàkk ngeen jël ay panafricaniste ay dirigeants yoo xam ne dañu bëgg seen réew ay souverainiste ngeen jël ay dirigeants yoo xam ne ay nationaliste yu bëgg seen réew ñu seen seen réew rek toy leen seen réew kese bo leen ko bés bo leen ko tanné do leen am ay problème yoy non do leen ñew ku nekk di joy aduna bi yeen yéen ñëpp jo fep am problème Sénégal koy metti koy metti da ngay waaye nan ma waaye waxal ci ICS non la ma keneen di waxee waxal ci euh, centrale bu tel ki nan ma waxal ci centrale Cap des Biches ki nan ma waxal ci Senelec ki nan ma waxal ci Sonacos ki nan ma waxal ci nangama nangam duma ci jéxal bu ma ko topon tay ji fii laay dëkk mais problème yëpp mën na mooy ngeen break de système dindi fi li fi nekk te wër nit yu bëgg yu leen bëgg nit yi leen bëgg te wër nit yi nga xam ne dañoo dañoo jiital seen i intérêt yéen amuñu benn complexe tubaab tant amul amu leen loolu ci ni ngeen di dee ci ay mettit ak ay naqar ay waxal ci lii waxal ci laa du jeex parce que yéen il faut ngeen xam ni amul leen gëdd ci dëkk bi nit bu ñuul amul respect kenn respecté wu ko Sénégal Sénégal tubaab bi la ñu respecté bañ ngeen ko ba ku am këyitu tubaab sax newul ci kaso bi ñi ñi nekk fees ci kaso bi del del del yëpp këyitu Sénégal lañ yor bés boo leen yoroon këyitu tubaab bi duñ leen laal kon ngeen xam ne waxuma la tubaab bi tubaab bi waxuma la mu ñëw de mais dama ne nga dem dëkkam mu jox la këyitam rek bu ñëwee seen dëkk rek dañ ko respecté waxuma laa nag mu mu ñëw mu tubaab bi ci boppam mi joxe këyit mu ñëw seen dëkk amu leen cër ci seen dëkk bi dañ ko waxte dee démb ngeen fi jàpp Branco taxe ko lu nekk jiñ ko lu nekk seen procureur bu mun a fen wax lu ne te ci dafa vingt quatre heures mu génn dem yoonam mais ça montre que yéen seen dëkk boobu noonu sa waay même boo ñuulee sax yor kayitu tubaab bi borom ko weex ki sax dañ lay respecté gars yi jox ñu leen cër il faut ngeen xam loolu joxuñu leen cër kaso bi lu muy fees yëpp prisonnier politique yëpp amul ko ci am nationalité bitim réew on a plus de 1600 prisonniers politiques amul ben bu tout a bu ci am nationalité française wala nationalité espagnole wala nationalité canadienne wala nationalité américaine ñëpp ay nationalité sénégalaise lañ yor ñëpp. te ñaata ñoo ci nek ñoo xam ñi xex am ay yeneen nationalité kenn dugalu leen fofu sa montre kay yéen gaay yi jox ñu leen cër il faut ngeen nangu ni ñi leen di jité respecté wuñu leen ñu leen cër te tekkiwu leen dara ci seeni kanam. léegi nag waxuma laa tubaab boobu noonu ñëw di leen exploité ñii di dinañ arrêté tubaab bi yow boo yoree kayitu bu la tubaab bi jox rek ñu jox la cër waxuma laa tubaab boobu déplacé wu ñëw di leen exploité hmm? ICS ñu li ñu leen di yëpp ab tubaab mooy nekk ci ginnaaw ci soxlaam lañuy dox kooku da wax ba dee mais njiit yi la problème mu njiit la ñun ay problème mu njiit lañ yor te moom la Sénégal musa yor problème mu njiit ci te demand un moment donné man est-ce que sama population ñoom amuñu problème mu choix problème mu choix donc Sénégal ñu xeex ko moo ñu jël ay nit yi nga xam ni ñun ñëpp gisal nañ leen suñu bopp kan Sénégal ba Sénégal daj kan moo fi gën a mérité yor réew mi ku ëpp Guy Marius Sagna valeur kan la kan moo fi gën a valeureux Guy Marius Sagna Sénégal ba Sénégal daj kan la wax leen ma kenn bu si Guy Marius Sagna taxawoon léegi ne leen voté leen ngeen di xool tànk yi naan est que sol na dàll ma dàll yi padam njaxet yi mu sol nag fekk moom moom Médine Galsen lay sol dàll ngaay mexe lay sol ngeen ngeen xool dàll yi comme Guy Marius Sagna moom Padam Ndiakhate yi mu sol nag Guy Marius Sagna yërëm bi ko petit ko fii nag Guy Marius Sagna nanga commencé koo jugé. Guy Marius Sagna nag moom boppam bii ni mel di mel ni R4 Guy Marius Sagna nangam ak nangam mais da ngay da nga naan sax est-ce que réew mi bëgg nañ dara ñoom. wala fu nag ñu xasal la ko dem jëli koo xam ni moom kos karawaat Macky Sall bu def na douze ans ci reñ bi bu musu leen gis ba jaaw ci Macky sàll mun ngeen gëm ni Macky Sall amul bejaaw mus ngeen gis bejaawu Macky Sall fu mu soloo mi ngi leen dóor kos karawaat di jaay français ñooñu ñoo leen di toroxal yéen mais dafa mel ni yéen ñooñu ngeen di wër dafa mel ni ñooñu ñoo leen di charmer quoi ñooñu ñoo leen di charmer il faut nga kos bi ñëw karawaat bi ñëw nga seere ko sol sol ay jot renfort siire ko xam nga di peinture sa bopp bi ba mu xoo ba mu ñuul kuk Macky Sall bu 12 ans mosu leen gis pepp bejaaw ci bopp bi ban complexe la am pour mun leen wax ne moom mag la yàlla def ko mu am plus de soixante ak quelqu'un mais du ñimawul amul fi fitu ñëw jàkkaarloo yéen génne benn pepp bejaaw chaque jour mi ngi leen di wane xaleel di mi mi ngi xale xalelu mi ngi dégradé wu di xale xalelu pour jéem leen na nax pour jéem leen na nax am na complexe bàyyi sax bopp bi mu mu mu bejaaw bi génn foo ko fekk day ñuulal di di tentaka di di di ko tooyal di ko afroi di di di ko wéef foo ko fekk mi ngi wéef di tent su ko am soixante cinq ans presque soixante deux ans ku ko am foo ko fekk mi ngi tentaka afroi pour lan ngay dund yàlla def la nga am soixante deux ans sa waay doylul yàlla lu fiy jar leen ni ni kan moo fi gën a taxaw guy Guy Marius Sagna tey ci panafricaniste panafricanisme Guy Marius Sagna bu muy xeex fii dans le panafricanisme ñu bokk ay benn ñu bokk bi yenn secteur di ko xeexandoo di ànd loolu kañ la Kémi Seba bu mu ñëw Guy Marius Sagna la fi fekk mu toog ñun ñoo doon àndandoo boobu France frappe dégage amagul dara amul ñoo doon bokk ci même marche di ànd mais dans la mais di xeexandoo ba suñ jonn yàlla tey

boo leen sonnee mu taxaw boo leen manqué ceeb mu taxaw boo leen manqué ndox mu taxaw ñu koy toroxal di dóor di def lépp lu mu musa Guy Marius Sagna musa dal ci kaw daj ci kaw suuf pour yéen la il faut ñu conscientiser brain yi ba ñu xam ni am na ñu leen bëgg dafa am ñu leen bëgg buñ ko jëlee dëkk bi daf ko jëf jigéen dëkk bi ñu def nañ ko jël daf ko jigéen jigéen bu warul xool ci ki mu bëgg moom ki mu bëgg da day xool ci ku ko bëgg ki bëgg jigéen bi kooku moo gën a mun a jaayante que jigéen bi bëgg góor bi relation boo leen gis jigéen bi nopp góor bi góor bi da ko toroxal relation boo gis góor bi nopp jigéen bi jigéen bi dina toroxal góor bi mais góor bi day taxaw loolu mooy loolu mooy foofu mooy bu baax bi mais bu gel bi bardee ci góor ba ndax ay coofeek roofe doo rek nanga kooku toroxal ko ba ne toog di 40 gel di taqale di daj faalewu ko ñun ñun noonu lañ mel ak suñu njiit yi ñun ñoo leen di fan quoi ñu leen ñu toroxal am ku ñëw taxaw di jaayante pour yow mais doo ko gis yow yow doo doo sax bàyyi xel doo ko bàyyi xel wala nga suufee ko na kii nangam di ko di ko jugé comme ni ngeen ci gaawee

nga xam ne peuple boobu dafa am problème ñun ñii ñëpp moom la ñuy campagne le Ousmane Sonko Ousmane Sonko 15 ans impôt domaine musul sàcc mbette Sénégal kon képp ku war a nekk danga war a sàcc comme si Sénégal <laughs> moom boo fa nekkee rek da war a sàcc quoi kon y problème kon société boobu am na problème pro société sàcc la ba nga xam ne ku sàccut dañ koy grade la

société bu ñuy ndamoo benn nit bu def 15 ans impôt dama musul sàcc mais loolu <laughs> sa waay c'est le c'est c'est le c'est normal sama gars loo moomul amoo droit jël ko tu dois être éduqué loo moomul waroo koo jël surtout mu doon alul askan alul réew sa baay sa yaay ñi ciy fajoo weccet ba nga sàcc noonu ab dañ ci war a fajoo dañ ci war a lekk dañ ci war a naan dañ ci war a lijjanti suñu problème dañ ci war a suñu économie nga sàcc ko daf ko si sa njaboot donc il faut ñu jàngal sénégalais yi que loo moomul waroo koo jël waroo koo sàcc waru doon lu rëy réew nag ak a yomba lijjanti réew ak a yomba lijjanti lu dépendre ci yow de ña nga ña nga choisir teg leen fa ñu ànd ak yow ñooñu ngay war a di rëkk seen dëgg amul saf sàpp waaw oui réew du benn nit de xam nga Macky Sall dañuy Macky Sall Macky Sall Macky Sall mais ñuy def sall bu la presque du Macky Sall Macky Sall bëri na yoo xam ne du ko sax yëg ci ginnaawam lañ koy defee am na yoo xam ne après lañ ko koy yëgal du jeex Sénégal googu noonu nu muy yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu mais ña fay jël décision du xaaj du jeex ñëpp Antoine jom day jël décision day tëj ku ko neex di bàyyi ku ko neex. Ismaïla major Fall day gënn fen lu ko neex tëj ko ko neex jaay ko neex Marème day toog këram ñoom seen biir seen ëtt kër googu la ñuy tàj la ñuy tëjaatee billaahi day naan ndoxo café nii mu wex mu ne eh, kii kan la tabaale eh, yow Thierno Thierno kii kii mi ngi bëgg a kii de Thierno jàppal ma kii rek Thierno Bandoom jël eh, ko sa waay ok ñu mel ni benn janax dem daqee dugg dugg këram tax jàpp takk kii jël nag ay bagages am yóbbu noonu la ñuy daa pente barke alxuraan kër ñoom Marème Faye la ñuy jàppaatee dëgg kër ñoom Marème Faye la ñuy toog naan seen café lekk seen ceeb bu tooy xapp ak i kaani paccal kaani mu saf saf ne mu jàppal ma kee noonu la ñuy jàppantee di noonu la jàppaate jàppaatee ñu fi jàpp ñoom loolu la ñuy ah. Ismaïla Madior yeewu jabar ji bëgg tëddee jabar ja jabar ja bañ ñu muy kutti kutti sonn guddi yëpp ki yeewu mer xëpp ko ci kenn ko ah, yeewu rek gis ba kii la jàpp ne jàppal leen ma Zeyna wala jàppal leen ma Zahra ñun <laughs> gars yi dem jàpp ah seen yoon newu ci ah dañ koy exécuté c'est des ordres dañ koy exécuté yooyu lañ am fekk Macky Sall dem na voyager dem na day ñëw rek ñu indi ko benn liste ah, jàpp nañ kii ah pour yéen Macky Sall day toog noonu di laajte ay jàpp nañ kii yeeg naa nga nag xanaa xamu leen je peux vous expliquer bu baax nag Macky Sall du góor yu jigéen di jiital de déedéet <laughs> Macky Sall du ko gëm buuram buur buuram moom du ko gëm xool leen Marème Faye bu baax ak Macky Sall ngeen xool Macky Sall du góor bu Marème Faye di jiite Marème Faye day def yi muy def mais Macky Sall moom Marème Faye amul faalewu ko Macky Sall di jàpp ci booy yi di suufu di dem di jëli ci xale yi noonu la jëlee seen xale bi nga xam ni nekk ci télé di ciib ciib ciib mu jàpp ko di wurang wan di ko yóbbu di ko ko tëddee <laughs> Maram Faye day di yuuxu mais Macky Sall faalewul Maram Faye faalewul Maram Faye la wax Maram Faye du ma Macky Sall Macky Sall dafa gëm ay affaire nguur de dafa gëm ay affaire ponkal jiite ay affaire yooyu Maram Faye yu muy dof dof lu yooyu yëpp non du du Maram Macky Sall ak loo ko mën a waxal du góor gu ñuy du ñuy def lu la neex quoi di ko fooyee non dafa dafa ngan dafa rëy dafa rëy nit bu rëy la nit bu rëy la mais Marème fa noonu lay toogee am équipe am moom di jàppaate ay njàppalaan di jàpp ku ko neex moom tamit ñaatoon la fi Marème Faye jàpp Macky Sall muy muy teudé ciaga ji ay ñom ya awé aw ak ñom di ciaga ju bari sax ciaga ciaga Ndakaaru Njaay yépp ma Macky di leen tëddee mag Marème Faye di ko yëg mais Macky Sall c'est un c'est un fou ah c'est un fou daf dafa c'est un détraqué mental ñu ci bëri Marème fay mo leen di japp mooy toog moom du voyager moom foo Macky Sall chaque jour ngeen gis ko mu dem Marème Faye du dem moom moom mooy toog bu Macky Sall demee rek Marème Faye fii nekk di lëmbe balaa Macky Sall ñëw fekk mu jàpp 40 50 cent dugal ci biir ci nu mu ko neexee maintenant di leen waxal ni ci Ousmane Sonko yëg ngeen ni bàyyi na grève de la fin bi waxoon naa leen tamit ne yaa am na waxtaan diggante la xalif général de mourides di ko ziar di ko màggal di ko ndamoo di ko tiitaroo di ko béggee bu wër muy sëñ sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke euh, yàgg na dox diggante Macky sàll ak ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko pour mu libérer loolu ba bu mu feeñee tàndarma ji it waxoon naa leen ne am na waxtaan bu xalif général des mourides séq ak ki nga xam ne mooy Macky Sall moom waxoon ko ne ko nee ko mu arrêté grève de la faim bi après ñu teg ñu xool nan lañ koy mën a bàyyee ci chantage yu Macky Sall loolu moo tax gars yi bañ fa ñëwee seet si ko mu jox leen tàndarma ji yi ñu yóbbu ko mais moment boobu ak situation bi Ousmane Sonko mënul woon arrêté léegi nag arrêté na xëy na jëfandikoo na tàndarma ji ñom Habib si wat nañ encore wat nañ encore dem wax ko ni ci bu ñuy ne suba la magal dem wax ko ni ah sa way arrêté na grève de la faim bi donc xeyna tan dana dina ko jëfëndiko motax khalif général bi neena alhamdullilah alhamdulillah lañ doon ñaan mu tambalé mu arrêté grève de la faim bi ñu commencé wax nak waxtan juboo ci kaddu lolou motax tax mu ne leen alhamdulilah lu ci dess bayi len ko ci sama loxo Khalif bi nak du waxantu de deret bayi len ko ci sama loxo waw si gaay tamit sant ko geureum ku nek wa bayi nañ ko ci sel loxo jambar fàq teud la ko sant diko geureum diko magal khalif general la des ko ñaanal guddu fan ak ndeysaan gis nga seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel dafa bëri ay seytaane nag yi nekk ci digg digg dëkk bi di jaxase rek ah non gars yi respecté woon xalif bi nag te du ñu dara ay ay yëfër lañ ñu bëri ci ñooñu noonu ay yëfër lañ ay ay caka lañ góor jigéen ay caka yu bon nag ñooy taxaw mel li ñuy défendre xalif bi fekk xoola gëmuñu ci dara affaire bi foi la ci biir xol waaye xalif bi musul jóg ci dox wax na ko sax nag nee na di kontaan ci seen i soññu xale bi mi leen di dégg de nee na di kontaan ci seen i soññu am na ñoo xam ne dañoo foog ni yéen da ngeen di critiquer xalif bi tandis que moom xam ne ni dangeen koy soññu eh, nit la de dangeen koy soññu moo tax mu wax leen ne di kontaan ci seeni i soññu donc xalif bi yéen yéen nee ni soññu xalif bi di ko fàttali ah am nga contrat ak ñun de yaa ñu waxoon lii yaa ñu waxoon laa yaa ñu waxoon lii kon am nga contrat ak ñun moom au lieu mu def comme bun sa line yi taxawaale di wëndaale ci internet bi naa da nga di saa xale bi da nga ko waxee <laughs> seen baay seen baay tekku dara seen baay du xalif seen baay tekku dara seen yaay dañoo taxawaale seen nan sàngara ba jur leen ñoom ñii ñu taxawaalu wëndaalu ñoo ñu taxaw na da nga di saaga ji <laughs> seen leen ñoom seen baay yi nu ñu doon taxawaaloo naan sàngara ak tëddee cagaja ba seen baay tek seen maam tekku dara seen baay tekku dara ña tekku dara ñoom ci réew mi kenn xamewu leen ñoom ni seen baay ni seen i maam ñu bu ko doon saytaane waaye xale bi ci boppam moom nga xam ne moom ngeen di waxal moom nee na moom yëg na seeni soññu kon li ngeen di wax noonu non du lu bonde moom xam gis na ni soññ la yéen a ngi koy soññ ci li mu waxoon ak yéen te wax na ko tamit ci délégation bi ne leen dégg naa soññ bi gis dégg naa seeni soññu waaye man it bàyyi leen ko ci sama loxo te loolu ak ak dëgg bañ pare ci loolu ki nga xam ni moom mooy waxoon naa ni négociation la quand même parce que le peuple n'arrive pas à libérer Ousmane Sonko qu'on le veuille ou non affaire mom a ah li ngeen bañaloon jabaru Ousmane Sonko rek kenn ki ñew ñaan nga am ñi genn na non warul ñaan warul ñaan tok fuñu tok toog seen bàyyi uuf wala ñu ouf seen ah, xam nga yenn yi tamit aussi ñak xel da ci bok yow nga tok di lek ba sul di nan ba mandi kële jëkkëram ñi yenu ko yóbbu mënoo libéré jëkkëram ba pare ne ko yow da ngay tere da ngay tere ku ku ñaan <laughs> wala da ngay tere négociation yow yow loolu loolu loolu mooy hypocrisie yow yaa ngi uuf sa njaboot sa baay uuf la yow kee moom mënatul uuf njabootam ñu yóbbu ko mënoo libéré papa jàmbur ba pare nag kenn du ko fi négocier kooku moom sa waay boo ma ne patiroon nga doo nit yow ko bon nga parce que buggoo négociation xeexoo génnoo libéré waa ji mais ne nga kenn du ko négocier koku <laughs> moom nga doo kooku bu génnee ne patron la xool ko ba xam ne kii bo ku soxor la mom ak ñi jibilé ndax dañu japp Ousmane Sonko ñoy yam parce que bu sañoon du génn parce que ma nga naan bu ko kenn négocier bu kenn ñaan <laughs> te mu ngi uuf ñabotam de mom ma nga uuf ñabotam de ba pare baayam uuf kook yaayam <laughs> mom moom nee na kenn du négocier waa ji te xeexut de xeexut mais nee na bu négocier mo naan na waa dé fof na waji dé fof te day génn ne patriote la da koy gis ci seen ci seen i masques donc li nga xam ne mooy la xalif général aussi euh, Ousmane Sonko bu soobee yàlla gumatuma mu yàgg ci kaso bi de incha allah def na ndigal ki di wax xalif général de mourides bi di ko sant di ko gërëm ni Ousmane def na ndigal ki na ko digaloon ne ko bàyyil grève de la faim bi def na ko yow it macha allah ab kilifa nga bañ waxee loolu ba léegi toogoo donc am na délégation dafa am lu fa bàyyi Ousmane Sonko jamono ji dafa am délégation bu war a bu xalif général des Mourides wara a yónni ci Ousmane Sonko délégation bi pare na donc dañ doon xaar màggal gi pare ñu dem gisi Ousmane Sonko ci li nga xam ne waxtaanee na xalif général waxtaanee na ko Macky sàll ak point yi mu ko tegal dañuy dem wax ko kilifa kilifa gi nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ndax kilifa la ñetti kilifa la. borom sañ-sañ bu defee borom sañ-sañ moo koy teggi keneen mënu ko teggi peuple bi sañ-sañam mooy dindi buñ ko mënut Macky Sall am sañ-sañam di tëj xalif général yi am sañ-sañ di di libéré waate dëkk noonu lay doxee suñu dëkk bi dëkk yi nag développé yi président amul sañ-sañu tëj sax ba justice di la libéré justice mooy tëj di ubbi mais suñu dëkk dafa am ay ñetti sañ-sañ ñu fa am mooy état bi seen sañ-sañ di justice amul Sénégal état parce que justice ak état bi ben un donc justice moi, am état bi moi, am sañ-sañ di Khalif généraux am di le peuple bi am sañ-sañ di mais bu peuple bi amul amul pouvoir ubbiwaate moy sañ-sañ Khalif général bi am pouvoir ubbiwaate mom ndax noonu la dëkk bi di doxee mooy ni dëkk Sénégal di doxee mais xalifa général bi dafay yóbbu dafay yóbbante délégation bu war a dem gisi ji Ousmane Sonko incha allah dañ noonu dañuy xaar màggal gi fu nekk nii xam naa ni suba wala ginnaaw suba xalifa bi dina ko yóbbu ñu dina yónni délégation bi ñu dem waxtaan ak Ousmane Sonko bu ñu waxee Ousmane Sonko ba pare ci li nga xam ne moom lañ tëral entre Macky Sall li mu wax ñu dañ ko ko wax te bu ko Ousmane Sonko nangu nangulee loolu xalif général bi dinañ libérer Ousmane Sonko donc ngeen xamee ko ni état <laughs> justice bi ñuy wax ay justice nangam ak nangam comme Sénégal li ñu naxaatee justice dëkk bi dafa am justice Sénégal amul justice justice jegewu fa. moo tax loolu balaa musul nangu man Sénégal ba mu toogee ci plateau di gis ay nit yu bëri jot di toog naan non Ismaïla Madior day fen parce que la loi estime que la loi dama naan ñii ñii ñii ñii lan moo tax seen bàyyi ak seen ndey liggéeyuñu. ñii ay sénégalais lañ nekk ci dëkk bi seen baay yaroo ci dëkk bi juddoo ci dëkk bi seen yaay juddoo ci dëkk bi ñu jur leen ci dëkk bi ñu ne pott ci dëkk bi ñu jug toogaat suñu plateau yi ne wax waxu justice ñii man ñooñu dañu <laughs> tam dañu am problème Sénégal dafa bëri ñu am ay dof de ay dof ay dof yu toog ci plateau yi ay dof yu dox ci mbedd yi ay dof yu sangu ba set wecc solo su kos karawaatu mais ay dof lañ boo fekkee seen dabaa nga xam ne ñii ay dof lañ parce que weesuwul dof weesuwul taal sa télé toog ñëpp toog nga kos karawaate ne fanaan oui la justice la loi elle stimule que la loi da ngay fen yoo dof nga wéru parce que sa baay mënu fi sa ay nga xam la réalité du terrain xam li fi nekk nga taxaw fi dañuy wax waxu justice ay Ismaïla day fen ñun xam na ni yow sax da ngay fen la day fen sa justice day fen say loi day fen say règlement day fen yéen ñëpp ay fenkat ngeen duñ leen sax déglu yow mi di wax sax di bëgg di ñu bugg xam loo ne xam borom xam-xam yow sax fenkat nga parce que ñun ñun xam nañ yéen ñëpp ay fenkat ngeen justice amul Sénégal jegewu ko nuróowu ko xam nañu justice amul Sénégal donc ñun nekkuñu ci débat yooyu justice musul tëj mosul ubbi justice Macky Sall la justice ñoom Marème fay la justice ñoom Ismaïla Madior la justice ñoom ga togg togg APR sax mun naa tëj ko ko neex donc ñooñu mooy dof yi set yi dof yu sango bo solo set wetch tok ci plateau yi di ruy ay air di làkki français mais ay dof yu mak lañ yu mag a mak ay ponk buñ la rayee nga ñak de dañu amul keuyit nak amuñu keuyit dof ay dof lañ de moy du leen dof yi dof yaa ngi ci plateau yi di wax parce que lo xamni sans débat ñom dañ koy def débat diko ko dof moy def yoyu ay dof yu mag ponkalum dof lañ ay ngandam ndam maami dof ñi ngi ci plateau yi di wër di taxawar rek dañu bëgg a sonal ay L deux cent L sept cent L six cent pour lu wane nii loolu lépp amul sens mooy tey bu makki sàll bu Macky sàll tëjee Ousmane Sonko ndax de raisons politiques te kenn mënuñu gëm loolu leneen parce que ñun xam nañ c'est des raisons politiques du ay Ismaïla Madior mooy ñu bëgg a ñëw loi bu ko bëgg teg ay loi pour mun ñu nangul nii jàpp bi dafa <laughs> non mais sa waay Sénégal fi ngeen gis ab procureur bu saisir japp Juan Branco dóor ko terroriste terroriste attentat coup d'etat bombe atomique la doon dóor japp nañ ko wër nañ ko tañ ko japp si lendemain bi lañ ko libéré <laughs> wax mos nga gis jesus mel jesus bu ñëw procureur auto saisir on a attrapé ba ci bir ba ci bir assemblée nationale ministre de l'intérieur on a attrapé Juan Branco gaay tatti waay waay waay mel ni benn bànn bu ñuy dàq yi waay 30 minutes gars yi di taxaw di applaudir waa APR yi waay waay waay waay nga ne lan la ñu ne jàpp benn waay lañ jàppale Juan Branco ah, ah, ah, on a attrapé Juan Branco <laughs> Antoine ñàkk jo on a attrapé Juan Branco <laughs> bon on a attrapé Juan Branco Il y sur la terre il Juan y en a des qui sont partis euh, au milieu de la mer nous capté entre euh, frontière euh, Mauritanie et Sénégal capté Nous nous ci mi ko suñu commandants yi ils sont extraordinaires mais gis nga dafa ñu ko ci suuf Nous nous kon on a attrapé Juan Branco procureur bi taxaw di duul ñoom <laughs> nañ jàpp nañ ko bombe la doon préparé atomique nucléaire wax na wax na sax woo na Kim Jong Un woo na président bi nga xam ni moo moom mooy euh, président Russie bi jot nañu ay coup de fil ñu ngi doon waajal bombe atomique nucléaire donc dañ koy teg ci attentat coup d'état euh, euh, terrorisme waa ji lu muy bëri yëpp moins de vingt quatre heures ñu ne waa ji génn na mu ne leen man avion VIP laay jël du ma du ma dugguma géej mais dëkk boobu nan la ñuy toogee nag dañuy waxtaanee justice ba naan procureur nee na nan lañuy toogee ñu jàpp ab nit ñu ne fugitif la waxtaanee ko assemblée national wax nit ñoom GIGN dañoo extraordinaire bépp dañoo dem jëli waa ji nangam pour procureur ba génn auto séjour génn ay chef d'inculpation yoo xam ne comme nucléaire bombe après ñu xëy génn ko mu dem yoonam. ñu naan contrôle judiciaire nous ji ñibbi France ñu ne contrôle judiciaire <laughs> donc ñi avons ci plateau nous di leen wax waxu justice ñuy nous lañ dof xamadi mais ñi avons ci plateau yi di wax ay waxu ay waxu justice ni Sénégal non ñii ñu yabaata lañ ñu ñu de lañ ñu xaw nous sommes suñu kanam Nous na mais y'a bu am nit de ci justice deug bu lolu am yeen nit war na mën a ci plateau jàkkaarloo ay sénégalais di wax waxu justice di wax waxu procureur dañ libéral doomu jamburi ta xamni deug bi amul justice donc nu di wax rek moy amna délégation bu wara a Touba ci ndigalu xalif général de Mourid ñu wara dem gisante ak Ousmane Sonko di ngeen ko dégg ci fan yi néew yu gatt bu ñu wax ak mom ba pare sobe yalla bu d'accordé ci point yi nga xamni ni général wax Macky Sall incha allah Ousmane Sonko dina génn ci ndigalu xalif général des Mourides dina génn dox ay soxlaam bu soobee yàlla waxtaan yooyu nag buñ ci yéggee dinañ leen ko wax mais pour l'instant daal nee naa leen négociation tamit day am ay compromis day am ay compromis donc pour l'instant daal délégation boobu dina jóg léegi. am na ay frère Serigne Mountakha mi ngi ci ay doomu baayam it ñoo ñëpp ñu ngi ci donc dinañ dem gisante ak Ousmane Sonko délégation xalif général des Mourides ñu ngi gisante ak Ousmane Sonko ba pare après condition yi ñu ñu teg Ousmane Sonko dina génn bu yàlla mais négociation boo gis dina am condition voilà loolu laa loolu leen di wax loolu moo xaw moo moo yeexal affaire yi dañ ne après màggal la ñuy envoyé délégation boobu mu ngi nag lépp lu am rek dinañ leen ko wax comme ni ñu leen koy yàgg di di defee des fois nag dinañ jiitu suñu jamono euh, des fois ñu def fi ay laay wax ay wax am ñu dagg dem yóbbu am ñu koy débat ratatat bu ñu toogee deux jours <laughs> moo tax man chaque jour nee naa chaque jour xanaa sénégalais yi nga xam ne dañuy nekk di taxawaalu ci ci ci yenn portion yi ñuy dagg di ci débat bu ñu tourné gis dëgg ji moolaa li mu leen waxoon feeñ xanaa dañoo war a ñëw chaque jour di di baalu de parce que ñu ñu lañ ma yoral lan de àq de te yomal xëy dinaa leen ko laaj ah. bu ma ñëwee jox leen information ne am na négociation am xalif général des Mourides ak Macky Sall ñi ngi teg ay condition pour la libération de Ousmane Sonko am na ma expliqué ci live bi passé gars yi dagg dem yóbbu am ñu waaye kii fenn rek lay après xalif général ba génn woon ni carrément ok def na loolu léegi kon bàyyi leen ko sama loxo tout ça xanaa ñooñu chaque jour woon nañ ñëw di ma baalu de mais tant que baaluñ ma baalu ma leen nag ka ñëw ma wax sama ko sa baay xamu ko sa xamu ko ma jiitu la ci information bi jox la ko nga dem di commenter bañ saaga naan ay fen ak nangam ak nangam da waat naa ci yàlla baalu ma ko te bëggu naa yow mal xiyaam yàlla fayee ma ko parce que dama ko waxul dëgg ma ma ñëw ci ab commentaire fen fen fenal ma fa wala saaga ma fa te dëgg après ñoom gis nañ ni dëgg ji moo laa waxoon na leen dëgg ndax ndax lii dëgg la waxoon na ko donc ñooñu rek maa ngi ñaan naa yàlla yàlla attama ak ñoom yow mal xiyaam baalu ma leen ko fii tax kenn ku ma baaluwul du ma la ko baal ku ñëw nag duul say duul ma wax tamit dëgg nga dem duul fa commenté boo retourné boo ñëwee ci suuf baalu ma mun naa laa baal mais boo ko defut de duma la baal te yowoon xeyam dinañ fayantu dinañ fayanto ba mu saf sàpp ay tiyaaba la ci man moo tax euh, affaire bi mission la li may def nii mission la parce que mun naa ci def àjjana bu weesoo loolu comme ni ñu leen koy ni ma leen koy waxee donc euh, ba démb daal Ousmane mi ngi ba mu ngi réanimation ba léegi ba démb ba démb gis naa sax ay mbalit mële nga xam ni ñoom ci loolu la ñuy dundee naan Ousmane Sonko musul grève de la faim <laughs> ñoom muñ sax Ousmane Sonko dee de <laughs> te xamuñu dee bakkan yàlla moo ko yor ñoom buñ sañoon Ousmane Sonko dee moo tax ñu ñu toll naan non loolu mënul ne 35 jours de grève de grève de la faim <laughs> sa waay sa waay xam nga yow lekk day ak saw nga xam toogal yemal ci lekk day ak saw yemal ci lekk day ak saw bakkan yàlla moo ko yor am na ñu fi nekk dans le comment plus de 3 mois 4 mois 5 mois ñi 6 mois ñi 1 an sax am na ñu nekk daan le coma 20 ans am na footballeur boo xam ne bu barki démb lay doog a dee nekk na dans le coma 50 ans loolu yàllaa ko mun gis nga bakkan bakkan mbiru yàlla la du yooyu fu nit. ak ñoo yàkkamti woon Ousmane Sonko dee moo tax ñuy génn <laughs> naan 35 jours noo mënul ne non non saa waay yàlla moo def xam ci nit yi moo def xam-xam ci nit yi ni gémmiñ mun na bañ a lekk laa la wax am ñu lu ñu koy defal ay perfusion yu ñu koy def ba di ko sol ay ndox di ko sol ay glucose di ko sol ay lip li ngay lekk ni yëpp ci yooyu yëpp am na am na yoo xam ne liquide la li ngay lekk lépp am na liquide li ngay lekk lépp am na liquide buñ la koy sol <laughs> doo doo dee <laughs> waaye comme sa baay jàngul la te nangoo jàng motax bo gisé Ousmane Sonko def 35 jours grève de la faim ngane mënul nek parce que yow xam nga sa serveur dafa touti dafa touti comme bu Macky Sall la comme bu Macky Sall na Jean Pierre Adam Adams barki démb la dee ñaata année la def dans le coma kenn xam plus de 25 ans dans le coma presque <laughs> barki démb lay doga dé le footballeur la mais dañu soxor ñom ñom mom ñom c'est normal gis nga li te léegi lu yeexal li lepp affaire Ousmane Sonko bi boy Macky Sall nak dafa nek do au mur il faut ñu comprendre ko tamit han ah. Macky Sall amul candidat parté ma ngay tass xamoon na lol de mo do Macky Sall do do wax nan len ba léegi Macky Macky Sall xamul fu muy tek tankam dafa jaxlé motax il faut mu jëlé fi Ousmane Sonko il faut mu def ko ko kon fu Ousmane Sonko dem lu ñeu baxna lu ñeu baxna xamul tax parce que Ousmane Sonko sa waay Macky Sall amul il n'a rien préparé il n'a rien parce que dafa japon dafa war a toog il n'a rien préparé Macky Sall dauphin musu ko préparé tam ba tay ji muy wax waxu dauphin kuñ tegal mu euh, Amadou Ba wuñ ko nenañ dafa am ay relation yo xamni depuis import domaine ak Ousmane Sonko di expliquer ay histoire jaboor bu Ousmane Sonko bu muy am doom Amadou Ba demoon na ci euh, sami bi sami sami ba euh, am na lu mu gisanteeg nangam ak nangam donc ay relation yàgg la yoo xam ni politique la nii rek mais ah, ñoom nee nañ ñoom gëmuñu Amadou Ba moo tax ñuy xeex Amadou Ba moo waral ay foo faux billets yi ngeen gis ak yooyu yëpp pour éliminer Amadou Ba parce que ñoom amuñu es wóoluwuñu Amadou Ba ki nga xam ni moom mooy Euh, mam booy Diaw moom dafa wone gaaynoom nëbbatu ko dafa wone gaaynoom ak Ousmane Sonko bu c'est un frère ñoo yàgg nekk ñoo yàgg ànd ñoo yàgg <laughs> bo c'est son jeune frère donc dara mënul tax mu mu mu mu trahir mu def yenn affaire yi loolu tax fu nekk ñoom ñëpp song ji nañ Mame Boye Diaw ne dañ koy éliminer kut parce que ñoom dañoo bañ Ousmane Sonko ba bu ñu yëgee ne xaritu nga wala da nga jege Ousmane Sonko sax doo kii loolu moo tax Ba amul chance foofu malgré que moo leen gën a taxaw ñoom ñëpp ñu fa taxaw mais amul chance moo tax ñi koy xeex nii fu nekk nii ña fa des ay mbalit lañ ña fa des moom <laughs> sa waay parce que alxuraan bu ñoo ñu ñëwee man damay ñëw damay damay bokk ci élection yi ay bunu Abdallah Jonn bunu Abdallah Jonn même seen kër mënu ko toj bunu Abdallah Jonn <laughs> moom man yéen ban dëkk mooy toog bun Abdallah Dionne doon président am bun nga xam ni day dafay am problème mu cerveau tey mu dof suba mu wér ginnaaw suba mu dofaat ginnaaw bun wérut bun bun wérut bun luy génn ci moom la bun da bun luy génn ci moom la bun wérut nañ ko waxte dee bun wérut ban dëkk mooy <laughs> toog bun di ko jiite ban dëkk la bun di jiite dellu ginaaw rek dëkk bu bun jiite dellu ginnaaw ni beneen dof bi Mamadou Maam Diop moom <laughs> kooku moom français bu baax sax mënu ko làkk gis ngeen assemblée nationale fara mënu sax làkk français bu baax mënu ko làkk kooku lu ko neex lay wax kooku moom dafa tëppër ñi ko kooku moom dafa tëppër ko <laughs> donc Macky Sall loolu moo tax moom moom moom moom am na amul plan amul benn plan amul benn plan yàlla may ko dara ñaar ñee nga xam ni ñoom ñoom sax mënoon na am ci ñoom yaakaar moom wóoluwu leen parce que nee na dañoo am ay ay gaañanoo ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko donc ay mbalit kese la dese ay mbalit looloo ko jaaxal fu nekk nii moo tax ni daf ne mu téye Ousmane bu téye Ousmane Sonko après lu fa nekk garaaw fu ne nii bu taxawoon ne bun dëkk foofu tas <laughs> ngeen foog ni ngeen foog ni Amadou Ba dina dem di toppi bun dina toppi bun ngeen foog ne Amadou Ba di Amadou ak nu mu ak nu mu day moom ci ci dayoom moom ngeen foog ni Amadou Ba dina rangé wu derrière Amadou Mame Diop yow munul nekk ngeen foog ni tey jii jii Abdoulaye Daouda Diallo la fuuwu air ba ngeen foog ne moom tam dina nangoo nekk ci ginnaaw moo tax Macky Sall benn xeexam xeexam moom mooy Ousmane Sonko moom amul dara moo tax mu jommi moo tax mu jommi de Macky bu amul ko dëgër kon wax na ko bu yàgg mais ba léegi mi ngi leen di tourner parce que dafa yàlla non yàlla dafa fort de yàlla gis nga xeex bi yàlla da cee am da cee an da cee nekk nekk ba boo leen gisul doo leen xam amul kandidaa te loolu yàlla moo ko daj taaj tëj wóoluñ Amadou Ba <laughs> wóoluwuñ Mame Boye Diao te xam nañ ni ñooñu bu ñu demee ak ñoom leader bu ñu teg ñoo ñooñu ñoo mun ñoo mun ay candidat loolu moo tax fu nekk nii ñuy jombi moo tax fu ne nii nu mu éliminer Sonko rek lay wër bu éliminer Sonko après lu ci des na ak ah, garaaw Aly Ñambi Njaay kooku sa waay Aly Ñambi Njaay moom ñoom boolewuñ ko ci de non Aly Ñambi Njaay dama lay waxal dara xam nga affaire bi moo wax la dara nga jàpp ko bun ak eh, kii la Amadou Ba bun ak Amadou Ba la ñoom wóoluwuñu Amadou Ba moo tax ñuy jéem a taqal Amadou Ba nu mu gën a gaawee bun lañ wax ne moo gën a fidèle ci Macky Sall bun moo gën a fidèle ci Macky ñeneen ñi ñe buñ leen fi génné ñëw ñu ñeneen ñoo ñoo tam ñeneen ñi ñeneen ñi tam dañ dañ tak ay takk yu garaaw lañ tak ñambi ali ñambi mo jaayoon batu drogue yi batu ministre de l'intérieur bu leen fàtte yéen da ngeen faté ali ali li ngeen ko fi saaga ay nday ali ci que bu leen faté dé ali da fee baye ay casserole lu salte ali ñambi bu leen faté ni batu <laughs> drogue yi yëpp la pousse yëpp la pousse dom bi di lembé di saaga Sénégal yor passeport diplomatique am di dem di ñew doom bu jigéen bi di toj dëkk bi bu leen fàtte aali caaykatu drogue la looloo tax ñu dàqoon fi aali aali ñaam bi moom mënul dox <laughs> ñoom xam nañ ne aali moom kenn gënu ko salte bun moo leen ci gën set mais <laughs> mais bu bun amul bun même biir këram bu ñu defoon élection day perte bun wérul boobu am dafa am problème mu cerveau il est bipolaire kii bi buñ wérut moo tax doo ko gis ci dara woo <laughs> kañ ngeen ko gëj gis bun day taxawee ne le dëkk bi kenn du ko jox bun dëkk bi kenn du ko jox bun mu koy jiite yàlla nañ ci yàlla musal <laughs> bun dellu ginnaaw rek lu muy génnee bon bun moom <laughs> lu muy évacuer ay déchets kese bun déchet la évacuer mos leen gis bun bu évacuer lu baax bun déchet rek la évacuer donc bun yàlla nañ ci yàlla muccal yàlla nañ ci yàlla musal dekk bu bun jité man de duma fa tek tank noonu moom mom mom boba mom duma fa musa tek tank mom dekk bu bun jité yalla ñu ci yàlla musal voilà ñom ñep dañu am ay problème fofu dossier de Petro-Tim Ali Ali Ñambi donc bun mo fa tané motax magi dal fu ne ni xamul fu mu jëm xamul fu mu jëm bun rek la fi la fi mu a teg te bun mom xam na ni bun bu bu doon xex ak yow mi sax nga gañe ko bun bu demone élection sa waay bun bu xeexoon ak Farba Senghor sax <laughs> Farba Senghor gañe ko dina <laughs> ko war a Macky Sall bu nekk ni négociation la gis négociation moo tax fu mu ne nii xam lan la gis gars yi may ko deux ans quoi mu def deux ans après bàyyi leen ñu rayante seen biir <laughs> mu jéem a régler ab deux ans xool nu mu koy kii rek téppar ñu ko daw donc loolu moo tax ñëw xam nañ ni Ousmane Sonko lu ko fi mun a teree don président lan la xanaa mu bañ a dem gisuma ko fi amul lan lu ko fi mun a xañ président xalaa xanaa ñu arrêté ko léegi nag pour l'instant comme ni ñu koy waxee gars yi Ousmane Sonko mu nekk négociation que mu bañ a nekk négociation ak nu mu mun a demee Ousmane Sonko nekk ci biti moo gën nekk ci biir Ousmane Sonko dafa war a nekk ci biti donc ak nu xalif bu mën a def rek ñu ngi koy sant di ko gërëm l'essentiel mooy di ko fàttali rek ne Ousmane Sonko def na lim ko sant moo ko wax bu mu bàyyi grève de la faim ba suspendre na grève de la fin bi donc xalif bi tam nee na yëg na loolu dégg na ko nee na alhamdulilah lu ci des bàyyi lañ ko sama loxo kon xalif général des Mourides ñun ñëpp Sénégal dans sa globalité bàyyil nañ la ko comme na nga waxee ni bàyyi ko ci sa loxo ndax kilifa nga boo ne bàyyi leen ñu bàyyil la bàyyi nañ ko ci sa loxo fu ne ni dootuñ ci waxati yooyu it macha allah ba nga ko waxee ba léegi toogoo yaa ngi wut sa délégation bu taxaw ay kilifa na ne da ngeen dem gis yi ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko donc boo leen waxtaanee moom daal loo leen def mais de tout façon Ousmane Sonko nekk ci biti moo gën fuuf nekk ci biir nekk ci biir moom vraiment nekk ci bitee ko gën kon Ousmane ko génn c'est une donc bàyyi lañ lépp suñu maam ji nga xam ni moom nee na dina ko lijjanti ñu bàyyi ko ci loxoom moo taxit bàyyi nañ ko ci loxoom mais problème bi bu Ousmane Sonko Macky sàll demee non Macky Sall dafa bëgg a repousser élection yi. xool leen même euh, mbiru parrainage yi seetlu leen ni ñu ko arriéré mbiru parrainage ba léegi parrainage amul parrainage ñu ngi ko waroon def ci mois bi fin du mois bi passé ñu ngi septembre août lañ ko waroon def ba léegi parenage mbirum parenage amul. Macky Sall laa ngi repoussé de élection yi la bëgg a repoussé élection yii dina ma jaaxal trop bu amee février 2024 mille vingt yéem dina lool lool lool lool lool élection yi février vingt <laughs> Macky Sall de lu mu fi toogee lay wutaat lu mu fi toogee benn deux ans am ne day stabiliser réew mi pour mu stabiliser wu def lu muy def ba pare nag après ne Ousmane yow sax dem léegi dem leen léegi dem lijjanti ku mën sa morom dóor

loolu la ñu woy guddal jël jamono ji ci jamono yu guddal jël la Macky Sall di nekk di yeexal affaire yi xool nu kii jàpp kii libéré kii ñu waxtaan xool nangam na ci loolu la nekk Macky Sall du fi bëgg a génn ci benn génn boo xam ni dañ koy may mu def li muy def ba pare après dem yoonam bàyyi la bàyyi leen ak Ousmane Sonko nag waaw lépp ko bett lépp a ko bett fu nekk nii loolu lay négocier de Macky Sall toog bi lay négocier de toog fi pour pare li muy pare après bàyyi leen ñu dem seen yoon. loolu fi ne de mais élection xeeñu fi de xool leen bu baax élection xeeñul xeeñul Sénégal de ci repousser élection moo ko tax a jóg loolu moo tax muy yeexal nii mais Ousmane bu soobee yàlla moom je pense euh, bu ñu bu délégation bi demee ba pare dina génn nga dina génn incha allah.

repousser suñu kaw lépp suñu kaw kaw la lépp lépp suñu kaw ñun peuple bi ñoo gën a doon victime loo gis politique bu ñëw ci suñu kaw lay dal lay dal ñëw ci gën a sonn moo tax Sénégal kenn desatu fa ñëpp a ngi daw ci gaal yi ñi ngi tagu ñi ngi taxaw mais ñoo man te nguur gu mun a fen non mais man moo ba mais nag mais nag nguur gu ñëw rek nga foog ni moo dàq fen tamit de jamono yi bu leen fàtte nag xam na am na ñoo xam ne dañoo gaaw a fàtte eh jamono Abdoulaye Wade nii la meloon de ak ñoom Serigne Mbacke Ndiaye ku leen dàqoon fen jamono Abdou Diouf tam nii la meloon ñoom ñoom ñoom kii lu mu tudd Abdourahim Agne yaa ñoo ñoo mënoon fen Abdourahim Agne bu ñëwoon bu fenoon suuf si day yëngu asamaan si di jaay lu xotteeku jibu lay teka bu ñëwoon ba duul ba dem <laughs> Ousmane Ngom kenn dax ko woon fen ab Ablaye Wade Ousmane Ngom bu génnoon nga suuf si di yëngu ndax fen Serigne Mbacke Ndiaye ak ko mënoon fen <laughs> xam nga yéen gars lu ñëw rek dañu foog ne am na <laughs> gars yi fen rek liñ mus a def Serigne Mbacke Ndiaye dafa doon fen di xotti moo dax Serigne Mbacke Ndiaye moo da doon fen ba bay bay verte toog ci plateau di fen di jël ay couleur comme comme kakatar day verte fen ba jaune fen ba rouge fen marron fen orange fen situation non i ñun dañu musa am ay njiit yu mun na fen ñu mun a fen sax depuis jamonoy PS ku la dàqal duul nga ne ma kii la moo tax tey ji bu ma gisee ji ay ay ñoom euh, Farba Farba far <laughs> Farba Senghor ñun am nañ fi Farba Senghor di mais Sénégal ñii ñii mënuñoo fen sa ko ku amoon ak ñoom Ousmane Ngom Abdourahim Agne tika hein Farba Ngom Farba Senghor di moins Farba Senghor dëgg sa ñi am ben Farba am fi Serigne Mbacke ndjay <laughs> kay ku la dakk fan gëna ma ki la mo tax tay ñew Antoine ñak jom yi ay formation ñoñu lañ ay poussin lañ ñom <laughs> ñom ñom ñom Ismaïla major Fall ñun suñu nopp yi dafa belendaw ji fen bu ñuy juddoo ba léegi njiit yi dañuy fen ay Amadou sal waaw l'avocat la fen gars yi dañoo mën a fen mën a def sale boulot c'est une continuité ah il faut ñu break ko il faut ñu break ko continuité la ba léegi li fi nekk mooy continuer maa dàq sàcc lañuy ñuy concours maa dàq fen maa dàq sos maa dàq tëj man Abdoulaye Wade noonu la doon tëjaatee bu leen fàtte ne Abdoulaye Wade te doon tëj rek di yàq gars yi di attaqué ay journaux di leen tuur ay marto ci lañ fëgg sax <laughs> waaye ay marto bopp waaye bi dafa yàgg de am na fi de taal si la lañ fëgg ay marto ba mu ne kañ ba mu belende jàpp fi ay journaliste observateur fëgg leen ay martu dóor leen fii ba ñekkeng dugg ci ay journaux taal dem dem wal fi dem rajaxe dem attaqué ji ay masali bu ñëw fekk gars yi nekk ci euh, euh, meeting mu taal meeting ba sa ay gars yi sadiga fi daa ñi ngeen di gis nii ay defkat kese lañ nguur gu mën a fen mën a def sale boulot mën a sàcc mën a rek lañ fa am mënoo c'est une continuité li ñuy gis ni yëpp amoon na fi bu leen ko fàtte de sawaay crime yi ray nit tiire taal boyal la loo muuf musaam Macky Sall mënul ñëw doon le contraire seen doom la fa la juddoo fa la màggee fa la yaroo c'est le même système moo tax système boobu lañ bëgg a arrêté système boobu nag ñi fi bëri ay continuité lañ ñi fi bëri régime assassin mu sa am régime tueur régime menteur voleur loolu lañ fi mës a am bu leen bu leen fàtte loolu <laughs> donc il faut ay Amadou Matar Diop booy tawoon fenkat yoo xam ni ñooñu lañ fi mës a am ay dealer sàcckatu terrain non réew mi musul changé léegi nag ci loolu foofu lañ toll tournant boobu lañ toll tournant wu Afrique yëpp a ngi changé ñun rek ñoo ci des foo ñu changé régime bii di ñëw xawma kañ la ak nu mun a demee mais dañ ko war a changer waaw waaw ay laas ay 24 heures chrono ay walf yooyu dañ leen incendié wu bu leen fàtte jamonoy Ablaye Wade mais ñun dañoo gaaw a fàtte nag gars yi ñëw non Ablaye Wade sax boo leen xoolee républicain la wala démocrate la <laughs> Ablaye Wade républicain la xanaa daa jàppaloon sa papa Ablaye Wade républicain la xanaa daa dammuloon sa yaxu baay Ablaye Wade xanaa daa taalu woon seen kër Ablaye Wade ak ak les ak les calots bleus là bon gaaf bu ne def nañ ko fi rey nañ fi ay nit suul nañ rey nañ fi ay puune jamono ab Ablaye Wade ñoo daxoon rey puune fi puune bu bu waroon do jot nii dañuy seeyal puune yi moo dàqoon rey puune fi Ablaye Wade moom moom moom ay rabam puune la bu dara doon xew rek puune yi la ñuy làqat dañuy jàpp puune di rendi rek di rendi puune yi di yóbbu puune yi di seey ci dëkk bi mom tamit toj na fi rajaxe na fi ak ay ak ay ay def c'est une continuité il faut ñu xex nak pour lolu jeex fi sama gars il faut ñu xex lolu jeex fi lolu moo fi war jeex moo fi war a dakk moo fi war a donc man comme nu ma ko waxee rek man xam lan la gëm Macky Sall waru fi mëna def dara dara dara dara dara dara dara ba raw ba waaw way <laughs> waaw Samuel Sarr ak batu ndox ba batu pétrole bu mu ne bu mu charge bu mu charge ndox ne dañ ko def ndox ñun dañoo yàgg sonn de dañ yàgg sonn suñu peuple bi dafa yàgg sonn billaay wallaay dañu yàgg sonn il faut nag gaa yi lii ñu takkal ko mu jeex moo tax gaa yi jël bakkan teg ci Ousmane Sonko ah moo tax teg ko de am ci moom yaakaar nag yaakaar dafa foor am ci moom yaakaar trop sax pour break système bi break système bi break break système bi jëlee ko fi mu jeex ñu am benn nouvelle ère am yeneen dund am yeneen xeetu vision panafricaniste donc euh, les gars je plan je pense que il faut ñu taxaw rek il faut ñu déterminer wu loolu rek moom moo fi des Sénégal dafa am loo xam ne dañ ko gëm a gëm a gëm a gëm a gëm a gëm a gëm a gëm a gëm ba mënuñu dem loolu bokk na ci affaire maraboutage maraboutage lépp affaire maraboutage c'est que ni ni affaire maraboutage feeñee ci suñu médias yi dafay dem ba nga xam ni kenn amatul jàmm ci réew mi quoi kenn amatul jàmm ci réew mi la def rek mara bu ngay xalaat bu ñu waxee sa tur sax mara bu ngay xalaat jàpp sëriñtu sëriñtu sëriñtu moo tax dara doxut dara doxut ci réew mi ah sëriñtu ñëpp ñu jox leen nag suñu espace visuel bi mel ni ñun xam-xam sëriñtu lañ ca xam sëriñtu maara yëpp toog ku ne toog ñu ne ay maara lañ kii naan non bu ma gis ni kii bi dafa xaw a lëndëm kii dafa lii kii non Ousmane Sonko dañ ko jekk mystiquement kii bi dafa lëndëm génne leen sarax tal mais mais réew mu nar a doxee ci noonu mais réew moomu kañ lay libéré wu kañ la li réew moomu di libéré kañ ban ban 1900 ngeen gëm ni dëkk bi dina mus a dem ba libéré bu dee nit boo xam ne bu fa xastaloo ne dañ ko sëriñtu dañ koo mystique buy wut dara amu ko ne dañ koo mystique bu mbiram dëgëree ñu ne dañ koo mais bu amee bu amee <laughs> ne moom mystique ñaan bi liñ ko ñaanal la mystiquement dafa taxaw nit ki milliardaire ñu ne dafa taxaw mystiquement nga ñàkk torox ñu ne dañ ko laal sa sa way lañ wax dañ leen mystique ngay rew momu tamit dina dina metté dem dé man de rew mi défa saa yu ma xalaté lool ba paré gaay yi tok ci plateau yi nak am ñi ñi partager lool ki waxati na dé ki waxati na dé waji tok no bay waaye lu ma gis moy situation wayen man xanaa man sëriñ la légui dé la ñu ma di ngeen may fay ma di ñaan man situation yi fi am ni <laughs> man waxon na yépp di dañ ma yab rek mais man dama ko wax ay yi weer ba mat dem leen ci sama live ya situation bii Macky Sall ak Ousmane Sonko bi yëpp waxoon naa ko man du nangu mu nekk ci biti da koy tëj ci kaso bi doo ko tëj ci kaso bi Macky Sall nangam ba ñu yooyu ñii ma non loolu munul ne loolu mën na leen ah dina ko tëj ci kaso bi nag waaye yëpp waxoon naa ko. mais man daal loolu doole ma jël yóbbu ma ci télé yi nii may wër nga sol sam ñetti abdu commencé yor sama kurus yu gudd na cëk cëk cëk na di dëmb dëmb ngeen ngeen mën a oh, dina ko tëj dina ko xam ne xam nga man ma ngi naan. ñi am na délégation léegi bu ko bàyyee fu nekk nii war ngeen ñëwaat ci man war naa war fu nekk nii nag war naa mën a toog ci télé yi nag njaax nekk sama ñetti abdu yore sama kii commencé dóor commencé dina ko bàyyi léegi léegi dina ko bàyyi am na délégation bu war a jóge côté Touba gis naa ko côté Touba am na délégation boo xam ne démb laa ko gis muy dajaloo ay ñu sol yu weex tàll ñu weex tàll daami ne ko ñu ngi farax faraxi di dem ñu ngi gis Ousmane mi ngi tëdd ñu ngi ko wër wax ak moom ah bi Ousmane jóg na génn na laa ak ay na ko de néew nu Ousmane na ah, man man fu nekk nii man da ngeen maa yab rek man vraiment gi ñii di ñii ngeen teg ci seen télé yi ñu yor leen di ngeen di daggatee ka teg ñii ñu wax yëpp waxoon naa leen ko non situation ma gis nii xaw naa lëndëm de <laughs> dañ def mel ni diggante bii lëndëm na non tëju na non buntu bi ubbeeku na <laughs> mais gars yi réew mi tant que ñi ngi doxee nii non góob ma ni di ngeen dem de parce que man damaa dem ci dëkk yi développé yëpp yàlla daf ma cee may chance mais man gisuma ci kenn dëkk yi développé yëpp yu am ci seen télé yi genre xeet yi toog nii yor seen ay ñetti yëre ak yor seen i grand bubu ndi di ku kucci kucci ay gis naa lii gis naa lee gis na mais sawaay sawaay gëw ma ni am na doomu aadama bu mun a développé réew mi ci kaw ci kaw lii gëw ma ko non gëw ma ko déedéet gëw ma ko de comme Sénégal dox ci géej gi lañ def événement dox ci géej dox ci géej ak wax kii géej waaye yéen gisu leen géej yéen demu leen foo xam ne dëkk boo xam ne ci géej gi lu tubaab bi tabaxee ay pont pont ndar bi du foofu du géej pont ndar bi jaarul ci géej ku ko defar sama am defaru ko de ab tubaab a ko defar ban 1900 la ko defar ban 1900 la la tubaab bi jaar jaar teg pont nu mu def ba teg pont bi pont ndar bi ngay dox noonu oto di ci daw camion di ci daw ab tubaab a fa tegoon ci mil mille mille warga dërëm ya ñaata pont nga gis fii yoo xam ne ñu ngi ko fa def ci digg géej gi te pourtant ci ndox lañ ko teg est-ce que imagine nga nan lañ def ba teg ko ci ndox mi ba jël ay aéroport tabax ko ci géej ba jël ay stade tabax ko ci géej ñun ñun loolu loolu waaj nit bu def loolu Sénégal mais lu rëy la ci Sénégal sax lu doy waar la dañ ciy werante ñu naan am na munul ne na munul ne munul ne fekk gars yi ñu ngi ñu ngi ci yeneen dimension ñu ngi ñu ngi ci yeneen monde sama gars yi réew mi nag dafa am problème de suñu réew mi non dafa am ngandam <laughs> ma sérieux problème yoo xam ni mënoo imaginer sax da ngay da naan est-ce que c'est c'est possible en tout cas war nañ mun a organiser wu de suñu état bi vraiment te dimbali ñu gars yi nekk ci média bi sonnal ñu sonnal ñu ay affaire maraboutage sëriñtu ah, ah. voilà am na ñuy dagg loolu sax ndeysaan parce que lépp waxoon naa ko man

Rio, tout ay mystique de le pont de Federon a été construit en 1887 ok 1887 tubaab bi defal le pont pont ba ngay romb 1800 mais ndox la géej tubaab bi tabaxal la fa pont en 1887 <laughs> la ilaha ba léegi nga toog ay nit yor ay kurus na la ay damay xar géej géej damay nangam ak nangam mu doon débat loolu dëkk bi problème mu cerveau la ñu am la wax loolu maa la waatal ni dëkk bi Sénégal moo tax dañoo gaaw ci tagg wax ni dof la ak ñoo gaaw ci kii dafa dof <laughs> mooy dëkk bu gën a wax ni nit dof la Sénégal ak ak gaaw yéen ñëpp wax nañ leen dof ngeen ku nekk ci yéen benn réflexion mës nga koo def am ku leneen yow dof nga yow wax dof yi nag yow dof rek nga yow do dofe yow dof dof dof à la à ñëpp a dof parce que ku nekk am na ku muy jiiñ dof Sénégal ku nekk am na ku muy jiiñ dof ku ne man am na ñu naan dama dof man mii am na ñoo xam ne naa dañoo dof yow mii am na ku ngay wooyee dof yow mii am na keneen ku lay wooyee dof boo kon donc Sénégal daal sa globalité ñëpp ay dof lañ parce que ku ci nekk am na ku ngay wooye dof am na ku lay wooye dof am na ku ngay wooye dof ndax réew mi yëpp dof la ak day tux yàmba dëkk yi gën a développé ñu fa dàq tux dëkk ñoo dàq tux yàmba mais Sénégal ñoom ñoom ñoom ñoom boo tuxee yàmba da ngay dof <laughs> même monde bi sax monde bi même artistiquement artistiquement laa wax musiciens yeeg yi fi nekk yëpp yu yuy gën tudd ci monde bi toxkatu ay toxkatu yàmbaa lañu woon waaw mais man nag dëkk bi Sénégal foofu laa xam naa fa laa koy tëjee waaye dëkk bi moom ñi ñu wax ne duñ tox yàmbaa mënuñu kere mësuñu kere duñ kere daal toxkatu yàmbaa yi ñooy kere ci réew mi réew mi yu ñu fa defar yooyu yëpp presque infrastructure 90 pour cent ñi ko def ay chinois lañ ñuy ñëw di tux yàmbaa guddi ay chinois ñi ngeen seen stade boobu chinois yi ko def guddi gi lañ koy defar dañuy tux seen yàmbaa defar ko ingin ngeen di ki yëpp sen BRT ñu ko ñu ko yang yëpp ay tali ingin ngeen gis non ñu koy defar yëpp ay tuxkatu yaa naan ko sàngara lañ eh, seen p kii bi nu mu tudd bi ngeen di jaar ña ko defar ay tuxkatu yaa mbaa naan ko sàngara lañ seen stade bi ngeen di dugg di tàccu sen ñuy tox yaa mbaa kenn defaru ko fa ñii sa ñi koy defar yëpp ay tuxkatu yaa mbaa naan ko sàngara ñoom ñoo ñëw tabax ko tux seen yaa mbaa naan seen sàngara defar ko dëkk bi yëpp Sénégal 80 pour ko man balaa maa dee ñu ne dañ non dafa tux yàmba dafa dafa dof dafa tux yàmba boo boobu ñu ko defar ma pont feder ba ay ñu tuxkutu yàmba yaa ngi foon ak naan ko sàngare ñoom ñoo ko defar noonu yaakaar naa dëkk bi dañ ca war a dolli prise de tuxkutu yàmba ak naan ko sàngare ndax ñoom ñoo yore sax imagination di defar ak di gi mais ñi ñi ñi ñi ñay wax noonu ñooñu ay dof la ñuñ defuñ dara defaruñ dara dara dara birig sax mënuñu ko teg brique sax mënuñu ko teg nañ bàyyi sénégalais ñi defar pont bàyyi leen sénégalais ñi defar pont xam naa da gis ku yore brique rek ñëw ci biir géej gi rek tëmbal ko brique ba wàcc <laughs> tey boo tegoon ay sénégalais nii ne leen kaa leen defar leen pont bi <laughs> dañu am problème nan la ñuy jëlee brique bi teg ko te brique bi du tëmb nan lañu jëlé jëlee brique bi dañ nan no fi bo tégué brique bi day tëmb lo mënul nekk mënul nekk té fekk ay yo xamné la nit yi dañ ko dépasser c'est-à-dire ngir yalla nit ku tok nan la ay gis na li ak fi dafa lëndëm ak fi dafa leer dama né sa yow yor nga xam-xam ba mëna gis suba japp lañu ci nga wax ñu nan lañu défaré pont ñu défar pont bi japp nañu ci nga wax ñu nan lañu défaré tali bi ñu défar tali bi japp lañu ci nga wax ñu nan la ñuy infrastructure yi ñu défar infrastructure yi dañuy toog yore su kii kucc kucc kucc kucc kucc kucc Sénégal yëpp maraboutage la kucc kucc kucc kucc di marabouté di sëriñ toog a xërëmtu kese partout ngeen foog ne dëkk boobu mun naa dem buñ la jàppee ñu ne non dañ ko mystique dañ ko jekku buñ la boo amee ñu ne non sëriñ bi ay boo ñàkkee ñu ne dañ ko laal mel ni àdduna nekkul ci diggante ñàkk ak am lépp dañ ko yónnee ci sëriñ lépp boo feebaree ñu ne dañ ko mystique boo amee ñu ne sëriñ bi dafa sëriñ bu aay boo ñàkkee ñu ne dañ koo jekku <laughs> réew moom nan lay développé woo réew moomu kon nan lay nan la fa xam-xam di doxe en tout cas war nañ jóg ci suñu bopp de dañoo yàgg ci ndóol yàgg ci ñàkk yàgg ci coono te ñuy jël suñuy affaire kenn du ci kenn yoru kenn takku ci nombo tubaab bi ñëw di jël xaalis bi di ko yóbbu kenn takku ci nombo kenn ci ñoom takku ci nombo wallahi la azim ñiy jël sañu pétrole kenn takku ci nombo ñi ñëw di jël suñu phosphate kenn takku ci nombo kenn diwwu ci kenn laalu ci saafara ñi ñëw di jël suñu pétrole bi ak suñu gaz bi kenn takku ci nombo kenn laalu ci diw kenn diwwu ci ñi ñëw di jël suñu zircon bi di yóbbu kenn takku ci ndombo kenn takku ci nombo kenn laalu ci diw kenn guuxu ci kenn takku ci te ñi ñu ñëw di jël seen ci ñoom ñoom ñëpp a ngi takku tubaab bi leen di commander takkul nombo mais ñu muy commandé ñépp ñi ngi takku ndombo ba fii da ngay buy dem di liggéey ñu ne lan la manoeuvre manoeuvre la ne ndombo yi la koy takkee toog toog dugal fii loxo yi fees tag mu mel ni mbër kuc dem benn tubaab di ko jiite tubaab boo booy bu ndaw 25 ans 26 ans ingénieur naa ko eh defal ma ko nii defal ma ko naa defal ma ko naa te takkut nombo takku dara dara dara di diriger ku takk 40 40 tonnes nombo yaram bi foo laal nombo la fii fay tel tel fii fay tel tel ndigg li fay tel tel tel tel mu diwu sangu suuru ñëw benn booy bu ndaw di ko commandé naan ko tegal ma ko fee eh wàccee ko fi non non brique bi doo ko tegee nii non non non xanaa bi defal ma ko nii defal ma ko naa yow nga takki noom yow yow ki lay diit takkul noom ba diwul nangul naaw yow yow nga takki ba fees tàkk beneen day ba taxaw sa waay kaw mystique koy mystique yow boo xool rek war ngaa xam ne yow seen lii am nga problème ak su li ma takk lépp kii takkul dara mais kii moo may jiitee yi mu commandé man ma takk bay dëgër bay wow koŋ te kii lu mu am aw ma ko te li li may def yëpp bu ma paree kii moo koy jëriñoo gis nga problème bii tam que jëlee wuñ ko fi billaay duñ dem duñ mus a avancé duñ mus avancé lu ñu fu ñu teg affaire bi moo doy waar fu ñu teg affaire yi moo yéeme moo kémtaane lépp loolu la quoi lépp lépp moo tax suñu njiit yi dañuy fen rek màggal gi Touba yëpp ndox amul ndox gars yi ils comme des ours en plein désert ndox amul sa lu gën a garaaw nag dañ naan ndox mi dafa taw tooy xar mais dëkk bi amul ndox loolu Sénégal rek nga koy dégg contradiction boobu Sénégal kese laa ko mës a dégg dëkk yu ma dem yëpp ñu ne waaj yi ñu ne foofu dafa taw ba tooy xat gars yi nuuru di fëy mais dëkk bi kenn amul lu mu naan kon nga xam ni foofu xel moo fa manqué dëkk bu tooy xat ba gars yi di nuuru ba inondation am mais amuñu ñu am problème mu naan naan ñoom ñëpp dëkk bi yëpp màggal gi yëpp kenn amu ci ndox wallahi lazim toq ndox amuñu ko ñu yor seen bidon di wër ba pare dañuy xuus ci ndox di wëri ndox xuus ci ndox di wëri ndox kooku yàlla moo tax foofu yàlla dafa ñu won ni l'ingénieur yi xel xel mooy nit am na noo xam ne bu ñu ko utiliser woon duñu ñàkk duñ xuus ci ndox pour wëri ndox kenn du xuus ci ndox di wëri ndox nga y'a problème fu ñuy xuusee ci ndox pour wëri ndox y'a problème bu fekkoon dëkk boobu ñu ngi utiliser seen xel kenn du xuus ci ndox di wëri ndox loolu rek day <laughs> wone ni au lieu ñu jël suñu xam-xam gii def ko ci suñu bopp bii def ko ci xam-xam di wëri xam-xam defuñu ko ñi ngay xool nañ lañu ko mën a mystiquer wala nan lañ ci mën a def ba mystique ko wala je sais pas lépp dañ ci mystique lañ ko bëgg a teg lépp ci mystique walla tax kuñ jàpp ñu ne nañ ko génne lii dañ ko génne laa nañ ko génne laa c'est c'est vraiment triste vraiment trice mu koy terminer nag ak euh, li ma gis nii fan yi dëgg-dëgg nag euh, gis naa benn décès bu indi ay coow quoi ci réew mi ci ci internet bi ci réseaux sociaux yi du réew mi sax ci réseaux sociaux yi am ko gaañ yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ma dégg ay nit yi di ci wax ay wax yoo xam ne am na ñu naan non kenn du ko ñaanal kenn du ko ñaanal <laughs> non jullit du ñaanal xaw ma yow ku la def jullit yow yaa dëgër fit yow mun nga waat ni yow jullit nga yow yow mun nga ko waat yow yow mun nga ko waat boo amee sa iri njaaloo bo waré fen fenn nga fen fa bo waré satch nga satch fa bo waré tiriande nga tiriande fa bo waré koromp nga koromp te yalla nee julit du koromp yow lepp lu yalla di tere nga koy tere nga koy def bam dess des lu du ñaan am nit ku dee nga no julit du ñaanal chrétien <laughs> kon yow julit nga ni yow ya deugur yow ya mu fit yow julit nga mën nga ci yow julit nga mën nga ci yow bo do dem safara <laughs> bu sàngara jël nga ne ko tuy bu yàpp nga xool gos xool droit dur ci mbaam bi tuy kenn dàqu laa fen fen ca fen ca fen ca ab mooy ndaw ñaawteef yi fen fen fen ci nday ñaawteef yi la bokk te Sénégal dàqu duul kuy duul kii daan la jullit la fen rek adduna te koo fen adduna yu la ko fen <laughs> mu ne la jullit la mais ko dëgër na fit de man da ñaanal na ki dee yalla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana man naw ma ci affaire yoy de ki dee xaw ma ko nag musuma ko seetaan xawma sax lan la deug deug parce que man duma ma seetaan télé gis na ko dal ni comme nu ngeen ko gisee gis na ko ci internet bi xamna naa ab nit dee na yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana lool la koy ñaanal waye yeen ñom ñi leen jité 90 pour nañ ay julit lañ ñom lañuy xéxal ni nii de <laughs> jullitu Sénégal a neex ñom ñi xéxal makissal ñu Sall julit la Amadou Ba julit la Ismaïla Madior Fall jullit la Antoine ñàkk jom jullit te ñoom ñëw so saa yi yeewoo ñoom jullit yi di saag seen moroomu jullit yi ne ñooñu ne ñoo ñoo leen sàcc ne ñoo ñoo leen fen seen frère jullit yooyu ñooñ ñoom dañuy yeewu ne ñooñu ay sàcc lañ ay fenkat lañ ay trian lañ ay juulkat lañ te ñooñu ñooñu tamit dañuy wax ne ñoom ay jullit lañ <laughs> waa kon dëkk boobu mom, <laughs> nooy doon ay jullit mom. <laughs> wala sa papa da doon julli rek nga yeewu doon julli rek ne jullit nga ko mais ñoom jël waa dëkk ba ñoom ñi ñuy dàq naa wuub saa jaay ñooñu nee nañ ay jullit la ñoom dañuy julli ni ñoom di <laughs> julli ni ñoom di jàpp ni ñoom di woof ni ñoom ñoom de te ñoom nee nañ ñoo ñoo dàq fen ñoo dàq sàcc ñoo jàpp njub leen kon kay dëkk boobu koo ñaanul da da ngay kàcc rek mais mun ko koo ñaanal sincèrement yow munoo waat ni <laughs> yow mi jullit nga dangaa dëgër fin rek yow mi nga ne nga ne da ngaa taxawee taxawaay jullit ba doo ñaanal chrétien ba wala doo ñaanal na ah d'accord d'accord ko yow jullit nga nii hmm, kon boo xooñee da ngay wër fële ab caga boo boo boo tëddee <laughs> jullit nga de ah d'accord kon yow nja doo njaaloo de ah yow doo fen de hmm? yow doo triande doo sàcc doo koromp hmm? déedéet doo def yooyu yëpp doo ko def jullit nga kay boo demee ba yow doo njaaloo doo fen doo koromp doo sàcc doo triande respecté li yàlla wax yëpp bu boobaa nga ne julli nga bu boobaa ku dee bokkul ci yow bu ko ñaanal mais bu dee yii yëpp munoo ko pour l'instant moom <laughs> mun ngaa ñaanal ku dee dégg nga mun ngaa ñaanal ku dee te bañ a nax sa bopp nag te xam ni matagoo jullit de matagoo jullit de bu fen jotee yaa daq ko duul sàcc jotee nga sàcc boo ko jekkoo sàcc boo ko jekkoo portable jàmbur nga mu fàtte ko fenn nga ne ko yollo si yóbbu nga ne jullit nga dalal portable jàmbur sàcc bi nga doon nga naan ay jullit nga bu dul jotee nga dul ba diwoo ko nga ne jullit nga hmm? pour l'instant yaakaar naa ne war ngaa mun a ñaanalaate ci ki dee ah, ba ba ba nga toll ci maqaamay bàyyi sàcc bàyyi fen bàyyi trian bàyyi njaaloo bàyyi rawale bàyyi koromp boo ci tollee bu boobaa nag nga xam ni yow waaw dëgg mun nga mun nañ la jullit nga ko sax bu boobaa nga bañ ñaanal koo xam ni du jullit ni yow mais tànk yaa ngi def yii <laughs> mun ngaa ñaanal de yaa ngi def yii may def nii mun ngaa ñaanal sa mbokk bu bu fi génnee sa mbokk la de tane woo ko de loo ko tane loo ko tane yaa ngi joué xibet nga ne yow jullit nga <laughs> yow yow bi yaa ngi ciy rey sa bopp yaa ngi ci loterie loterie nationale sénégalaise bi da ca sa bopp fas bi ko dàq daw ak équipe nationale football bi match bi moo moo moo gagné match bi yow jullit nga <laughs> dugg leen ci baar Sénégal yi ngeen xool ñu fa gën a bëri benn genre nga fay fekk benn pôle Mohamed Abdallah Serigne Touba euh, Ahmadou euh, Bañes Limaamu ñoo la ñuy tudd ñoo fa fees del naan jox ma kaas bi jox ma falaak bi jox ma whisky bi jox ma champagne bi ñoo fa fees tel dugg leen ci baar yi ngeen xool ñu ngeen fay fekk caga ji doo fa fekk caga ji ci bëri ay Khadija Amina ñoo fa toog di càkkatu de bi seen ndarpan yi di xaar ku leen yóbbu karte da ngeen di <laughs> ñëpp baar ba caga ja 90 pour cent yëpp ay Amina Khadija Fatuma Bintu <laughs> ñoo fa nekk de góor ya nag Abdullah Mohammed Moussa Insa ñoo fa nag no <laughs> sàngara ya waaw ñoo nekk ci x eh, eh, casino yee ñoo nekk ci xibet yi mënul duul toog na man boo yeewu gis Sénégal ñaan non bu kenn bu kenn jullit du ñaanal jullit du ñaanal chrétien <laughs> kon Sénégal toll nañ foofu ci jullit yi kon jullit yi macha allah kon Sénégal neex na ah waaw macha allah Sénégal da dëkk jullit la dëkk bi dëkk bi ay ay jullit yu mag lañ la ilaha illallah duñu fenn duñu njaaloo duñu sàcc duñu duñu triant duñu duñu corrompu dañ jul ay jullit lañu ay jullit man jullit ay macha allah ay jullit lañ kat duñ ñaar duñ ñaanal chrétien non réew mi non réew mi moo neex barke alxuraan waaw donc euh, voilà ki nga xam ne moo génn àdduna xaw ma ko mosuma ko gis mais maa ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw voilà yàlla na ko yàlla ñun de toppewuñ ko dara parce que xamoon luñ ko dara tamit ah sàccul suñu alal dund na ba dee sàccul suñu alal triandewul suñu alal toogul ci média yi di rayaate di fen yooyu yëpp gisaluñ ko ko ni Ismaïla Madior def kon Ismaïla Madior bu dee war ngeen ko ñaanal kon moom chrétien bi bu dee war leen ko ñaanal mais Ismaïla Madior mun ngeen ko ñaanal kon Antoine ñàkk jom tey suba bu dee da ngeen koy ñaanal seen mbokku jullit laa kon yéen seen mbokku jullit yi nii lañ mel daal fen ak sàcc ak rayaateeka tiriyandeeka ñoo ngeen di ngeen di ñaanal <laughs> ñooñu ngeen di ñaanal ah kon Ismaïla suba bu deewoon kenn waratu ko wax te jullit la dee ah. kon bu ko kenn kii de ne ko ñëpp ñaanal la ah. kon Antoine ñàkk jom bu dee suba ne ko ñëpp ñaanal kon Macky Sall bu dee suba ne ko ñëpp ñaanal ah d'accord mooy jullit bi ah comme <laughs> Marème Faye Sall suba bu deewoon dañ ko war a ñaanal ah mooy jullit bi ah <laughs> kon ñoo ñoo jullit yi ah ñooñu la ñooñu la ñu war a ñaanal hmm, d'accord d'accord d'accord d'accord. Subhanallah <laughs> waaw donc euh, voilà ki nga xam ne moo génn àdduna Jean Pierre xaw Jean Pierre je pense maa ngi lay ñaanal yàlla na suuf oyof sa kaw sa bàmmeel leer naññ ne gaañ yàlla na yàlla teeru teral la ci àjjana yi gën a kawe waaw maa ngi la koy ñaanal ñëpp a ngi la koy ñaanal ñëpp ñu la xamoon ci sa mbaax sa gorek ñu ngi la koy ñaanal voilà foofu laa yem débat de borne fonten yooyu ay cag caga te boo xoolee internet bi nag ña fay débat ay caga yu mag lañ bu fekkoon caga ju génn di wax góor ña nga tëddee génn na la bàyyil fenn yow doo jullit tëddee nga ma kon kon kon kon gis ngeen ne commentaire du bëri réew mi bu fekkoon ku nekk lu mu xamal nit ko wax ko kon commentaire du bëri boo fa ñëwee naan noo julli kenn ko ñaanal ñu fekk la Abdallah ñu ne Abda jigéen ñi nga tëddee yëpp ñëw ne ah Abdallah yow yow ñi mi ngaa wax loolu yow yow bu ma tëddee yow bu may tëddee yow kii nga ma keneen beneen gel ñëwaat ne Fatoumata ñëw ah Abdallah ñi mi ngaa wax yow yow yow jullit nga yaa ngi fàttali ba ma tëddee fii do doo dootu ko dooleeti billahi boo boo la ñëwaatee da ngeen fekk Abdallah dindi commentaire am daw ko Abdallah day dindi commentaire am daw bu fekk boo fa fekkoon benn Fatima bu toog na non jullit bu ko kenn ñaanal faram <laughs> ko la ah, lip ñëw ben mo la ñono ga Fatima xana do wax lol de ba ma lay tedde bu fàtte de wala do newa julit jullit ma lay tedde dila ñam ñam-ñamee neexa xanaa newa woon jullit Moussa na ah, ga Fatima yow xanaa <laughs> danga ma faté ba nga duggé sama neeg ba ma ñam la fa ñam yu tang yoy non xana do woon julit li ngeen gis Fatima effacer kon commentaire ndaw mais comme dañu suturalante mo tax ku neex tok fu la neex lek ba say tàttàng ñew na no bu leen ko ñaanal <laughs> julit la ne ku nekk rek ñëw fekk kuy wax eh ña fay commenté naan ay julli kenn du ko julli la ñuy ñaanal ak ku dul julli duñu ko ñaan dama ne ñëw leen boo leen fa fekkee jigéen ñi ngeen commenté boo leen ñamee ngeen xam xamal lañ kii ñam naa ko te nee na julli te ba ma koy ñam mu may jox ndar payanam nee woon na julli te ñam naa ko façon ñam bu ne bu dee góor la muy ku ci yow tam bu jigéen ñëw bind na eh, génnal fi génnal fii laa la wax bul dugg ci eh, kaar yàqu yi yoo xam nga waa xam naa la ba ngay wooyee julli nga te man nii ñam nga ma te te du ma sa jabar njaaloo te looloo gën a xaram fuuf nii nañ ñu may jàmm waay kon sama gars asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa barakaatu peace and maaw société naa fekk fen ko mën a duula ko mën a commenté te ku la gën a nekk naa nga ne ma kii la ku la dàq duul nga ne ma kii la sàcc ki fen ak njaaloo seen àdduna la lañu ne to yéen di ñaanal du la di ñaanal <laughs> gas